tay comme li nga wax jeunesse bi mo gënal bopam sénégalais yi ñoo gënal sen bop parce que dañu sonn bu mu jàmm bi lañ bëgg dag depuis 60 ans tay ñu ngi ñaan suñu génn bi tay du violence du dara démocratie la ak liberté d'expression lañu soxla la lutte continue Free Sénégal. merci ak bees. Euh, li ma bëgg rek sénégalais yi comprendre moy ñun ñun ñu askan bi lañ fi nekkal ñun ñu ci benn parti politique est dégg ñun bokkuñu si benn si benn si benn parti xeexaluñ benn parti askan bi la ñuy xeexal foog ñu comprendre ni suñu doom yi suñu jeunesse yi suñu ndaw yi ñu dor ay bal ñu dee ñun ñoo la ñuy xeexal. est-ce que dégg ñun ñun ñun injustice bi la ñuy xeexal ñun ñuy tëj ci kaso bi te ñu dara ñoo la ñuy xeexal te xeex bi jeexul même bu Sonko génnee dañuy continuer combat bi il faut que jeunesse su tey bii nii xam ne ñun ñoo mën a changer le Sénégal te pare nañ pour jóg pour changer ko. Non à l'injustice. Non, non, non.